daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk seen production islam ca kanam ñoo ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal ñu fas yéene fi ñu yemoon ci jaar jaaru xaadim rasul ñoo ngi yemoon ci épisode 18 kon episode épisode 19 lañu wara agali, àggali allah fi ñu yemoon nag bi nga xamee ne sëriñ bi jugee na fa nga xam ne mooy sarsaara dem fa nga xam ne mooy ak xew-xew ya fa jotoon xew ca teen ba ak bind yooyu mu fa jotoon bind muy bayit ak may yooyu ko fa sunu borom may fi nga xam ne nag fa lañ yemoon dëgg-dëgg mooy bi nga xamee ne ñaari kuréel yooyu muy kuréel bi ñi nga Ahmed Ibnu Kawru at tijaani ak kurel bi nga xam ne ànd ak ki nga xam ne mooy Aboubacar ibn Fatal al-Khadri werante boobu doxoon seen diggante ba indi réeroo seen diggante ñaari kuréel yooyu nga xam ne ay naar lañ réeroo doxoon seen diggante ci benn baat muy baatub inna allah maana yàlla ngi ànd ak ñun. bi nga xamee ne sëñ bi ñëw na fa nekk boroom xam-xam bu ràññeeku nekkit nitu yàlla ku ràññeeku ca dëkk ba ñaari kuréel daal di dajaloo daal di bind ab leetar sëriñ bi laaj ko laaj boobu ngir mu àtte leen ci ngir sëñ bi joxe ci xalaatam. sëñ bi nag bind yooyu nga xam ne bindoon na ko dañu jàngaloon leen ko ci épisode bi passé bi nga xamee ne ñaari kuréel yooyu liir nañ ko dañoo daal di nangu fasaasa saasa nangu gu wér a wér boole kook nag jàmmoo déggoo jàmm doxaat seen diggante ba mu jóge ñu juboo ñaari kuréelu kuréelu naar yoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ am réeroo ci ab masalan ab nit ku ñuul jógee fële ñëw nekk boroom xam-xam daal di leen gàgganti ba jubale leen ba boolewaat leen loolu nekk na kemtaan gu rëy ci jamono boobu ci noonu nag ba xew-xew boobu jàllee ci la sëriñ bi delloo fa nga xam ne mooy ca Sarsara waaye ba muy dellu nag ma nga ànd ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sidiya ndax Cheikh Sidiya dafa fekk sëñ bi fa nga xam ne mooy jaraar ngir ànd ak moom dem Sarsara li waral loolu nag mooy Cheikh Sidiya moom itam dafa amoon diggu doxoon digganteem ak sëriñ bi ndax moom sëriñ bi wëllëreem la woon mu doxoon médiation digganteem ak tubaab yi ba muy nekk Daaru Marnaan te tubaab yi bëggoon sakal sàkkal pexe sëriñ bi jaaree ko ci Cheikh Sidiya noonu la ñu Cheikh Sidiya ba fexee convaincre ko xamal ko ne ko bu sëriñ bi ñëwee gànnaar di nga ci bénéfice ndax nit ñu ñuul ñi bu ñu ñëwee ngir seet sëñ bi bu ñëwee ba fekk la fi ngay borom xam-xam ñëpp danañ ñëw jébbalu ci yow mbooloo yëpp danañ bàppeeku ñëw ànd ak yow ndax am complexe naar ci noonu nag bi nga xamee ne Cheikh Sidiya ànd na ak bi ba ñëw bu ñu Sarsara Saksi sidé waroon ak waroon a dem te sëriñ bi gàntaloon ne lu ànd ak moom du dem ndax amagul ndigal ci boromam loolu indi woon réeroo seen diggante cheikh sidé nag daal di sëñ bi dem defe bu sëñ bi dem ab lor dina dal sëñ bi waaye mel ni loolu mu yaakaaroon ci kawam la këpp ndax lore ci kawam la mujj këpp ndax moom sidé dafa yi di dal ci kawam ak kaw ay juram ak tuba bi nga xam digon ñoo ko ko na bi ànd ak ndax bu boobaa ñoom tubaab bi danañ ko danañ yokk garaatam te itam moom cheikh sidé taalibe danañ gën a bari waaye loolu nga xam ne moom la ko tubaab bi waxoon contraire bi la gis tey cheikh sidé ya mom mooy daw ñëw ci sëñ bi làqatu ci moom ndax jaaxle na ndax gis na ne bu bi ci jàmm rek lay nekk ak xéewal waaye su wanee sëñ bi ginnaaw dem dellu ca tubaab ya wala mu dellu ca ay nekkaaleem ci fitna ak jafe-jafe rek ki lay nekk loolu taxoon na cheikh sidé ñëwoon foofu ca jaraar ànd ak bi ñu dem ñu dem sarsaar lii firndeel tolluwaay boobu sëriñ bi toll ci boromam ba tax na képp koo xam ne tongoo nga ak moom nga wan ko ginnaaw yow yaay dem ba jaaxle nga dellu si waaye sëriñ bi moom du am lenn lu muy dabuwaat ci yow ndax ànd gi mu ànd ak boromam ak topp gi muy topp ndigalu boromam te du def dara lu boromam moo ko jox ndigal loolu la sëriñ bi bind ci bayit yi waay suma taqaf ilaaka ahad yaqaf ka min xawfika hoo kullu ahad mu ne képp koo xam ne da ragal yàlla te ragal yàlla gi di dëgg ci yow di lu wér ci yow ni yàlla di diisee ci yow noonu ngay diisee ci xolum mbindeef yi moo tax képp koo xam ne wan na la ginnaaw lu mu yàgg-yàgg dana la dabujuwaat ndax li nga xam ne moom lay moom lay yéene ci lor ak ci pexe yépp boo sàggantuwul ci kawam lay këpp te bu boobaa du ci yaakaar kenn ku dul yow loolu itam la sëriñ bi di wax ci beneen bayit bi laanat bu quloobu ab abdaanu saalamani bii daanu wal soo daanu sëriñ bi ne féete gi ma féeteeg sama boroom te muy lu dëggu ci man moo tax sama boroom wëllil ma xolu mbindee fi ak seen yaram looloo tax nit ñu ñuul ñi ak nit ñu weex ñi nga xam ne dañ maa noonu woon tongoo ma wan ma ginnaaw ñoom ñëpp a ngi ñëwaat te dabu ci ci man di jàmmoo ak man ci biir jàmmoo googu nag ci la Cheikh Sidiya ñëwee àndaat sëriñ bi ñu jóge foofu nga xam ne mooy jarraar ñëw fi nga xam ne mooy Sarsara wax nañ ne bi Cheikh Sidiya ànd ak sëriñ bi ñëw Sarsara yàgguñu fa diir bu gàtt lañ fa def daal di fay jugee sëriñ bi daal di jugee Sarsara dem fa nga xam ne mooy Tintu Mohsin Tintu Mohsin googu nag la tax sëriñ bi ñëw fa jugee fa nga xam ne mooy Sarsara ñëw Tintu Mohsin wax nañ ne Sarsara bi fi sëriñ bi nekkee tubaab yi dañoo am déception bu rëy ndax li ñu yaakaaroon ba taxoon ñu fexeel sëriñ bi jëlee ko Sénégal boole ko Cheikh Sidiya andi ko fi nga xam ne mooy Gànnaar mooy dañoo gis ne sëriñ bi nit ñi dañ koo gëm lool te Sénégal gi sëriñ bi liggéeyal na leen fi wit ndax Sénégal nit ñu ñuul ñi ak ñi fi nekk ñëpp dañoo topp ci ginnaaw sëriñ bi la ëpp ci nit ñi gëm sëriñ bi jox ko wàccuwaay bu rëy te loolu arrangé woon tubaab bi ba taxoon na ñu def seeni pexe ba indi ko gànnaar waaye nag gànnaar mel na ni fëla yëf yi gën a ëppee doole ndax naar yi suñu borom daf leen tàggat ñu bëgg sëriñ bi bëggeel gu jéggi dayoo. ba noppi daal di nooy nooy gu tar sarsaara googu la fa sëriñ bi am ci ay taalibey naar kenn xamul nu mu toll jamono bu nekk rek mbooloo mi di bàppee ko fu nekk di ñëw ci sëriñ bi dem nag ba naar yi jaaxle kilifa yi naar yi nga xam ne ñoom ñooy gouverneur yi fa nekkaloon tubaab yi daal di jaaxle lool. wax nañ ni seeni pexe bokk na ci loo jëlee sëriñ bi foofu yóbbu ko Tintu Mosin waaye loolu dafa fekk mu dëppook coobare suñu borom muy ndigal li suñu borom di jox sëriñ bi jamono bu nekk boo waree jógee fenn dem fa ca des ci noonu nag la sëriñ bi amee ndigalu jógee foofu di Sarsara dem Tintu Moxsin waaye bi sëriñ bi demee Tintu Moxsin googu ba am fab diir itam lewoon wàññiwul benn yoon ndax jamono bu nekk rek sëriñ bi aw yoonam day dox ay mbiram di dox di yokku nit ñi itam di jóge fu nekk di ñëw ci moom naar itam di jébbalu ba seeni sëriñ sax dañoo mujjoon jaaxle noonu nag wax nañ ne gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon foofu te gànnaar ca Mauritanie gouverneur boobu gouverneur boobu dafa bañoon sëriñ bi lool bañoon sëñ bi bañal ko jéggi dayoo nag ndax moom itam dafa fogoon ne bu sëñ bi ñëwee ci seeni loxo ñoom li ñu bëgg dañ koy am waaye moom moo gën a am déception ñëpp ba tax na nag mu jaaxle woon lool ci la jëloon nag ay pexe benn ci pexe yi mooy day fexe ba faagaagal sëñ bi daal di koy rey benn yoon ñëpp noppalu ci noonu nag la daal di fayee benn naar naar boo xam ne dafa nekkoon ku amoon kàttan nekkoon itam koo xam ne daanaka daal amul décision ci dara ci noonu nag la jëmm jooju daal di faye bi fay ko xaalis bu bari wax nañ ne lam ko fayoon ca xaalis moo ngi tolloon ci juróom fukki junni mu ne ko dinaa la avance xaaj bi su ma la avancé xaaj bi lenn rek mooy sama bëgg-bëgg mooy sëriñ bee nekk ca tintu muxsin te jógee sénégal muy sëriñ tuuba bëgg nga jaar jaar ba ko daal di koy soo ko faatee dinaa la mottalil li des ci sa xaalis bi su ko defee nga daal di am xaalis bu bari ci noonu nag naar boobu daldi kontaan lool nag daal di am mbégte ci digg googu nga xam ne tubaab bi digg na ko ci noonu nag la naar bi daal di ñëwee daal di jébbalu ci sëriñ bi nekk taalibe comme ni ko ñëpp nekkee ci noonu nag bi nga xamee ne naar bi jébbalu na di ànd ak taalibe yi di liggéey te fekk jëfam ak li ne ci xolam wuute na lool waaye sëriñ bi moom dafay ko xam ne dafa féeteeg boromam ba tax na sunu borom du ko nëbb dara ci noonu nag la sunu borom xamalee sëriñ bi li nekk ci naar bi nga xam ne naar bi bi mu ñëwee automatiquement day jébbalu ci sëriñ bi bi sëriñ bi jàkkaarloog moom xool kanam gi la xam li nekk ci moom waaye sëriñ bi bëgg ko wax dara dafa bëgg a jëfandikoo méthode boo xam ne dina dimbale naar bi ba naar bi du loru ndax sëriñ bi daf koo yërëm du mës a nekk te itam bëggul naar bi di loru benn yoon ndax xam ne bu jéemee fexal sëriñ bi su moytuwul ay lor mën na ko caa fekk loolu taxoon sëriñ bi yërëm ko nag ci noonu nag la sëriñ bi bindee bayit yi di ko jox ngir mu koy jàng ndax sëriñ bi jàpp ne xëy na bu jàngee bayit yi dina am dina am xel daal di comprendre li ko sëriñ bi jubloo junju su boobaa dina dellu ginnaaw bi sëriñ bi bindee bayit yi daal di koy jox te bayit yi moo nekk nii إلى الشواء يدرك الشيطان ما لهما عني من سلطان الله ربي ونبي المتبى صلى عليه من عداه واتبع قلي وحبي وأبا مدرتي قرام من رب الورى مسرتي سرين بي وقت بيجيني سيطان سنو برام خطي نكو مجم فنن فدول جمان من سيطاني من تأكسي جمان تيدم منو ما يقل دار أبلور نغموم سنو برام ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar xëcc nañu lor mu jëm feneen fudul ci man lor mënul agsi man fu mën di jógee rek soo ko bëggee ànd ci man itam da ngay sonn waaye du agsi ci man li fi nekk kay mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ma mbég ci sama boroom mbég moo xam ne bi mu ko sàkkoo agsi na kon man mbég rek laay mën a def waaye mënatumaa loru kon nag képp koo xam ne yaa ngi yéene lor ci man boo sàggantuwul lor bi mën naa ñëw ci yow ndax man mbég la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàkku ci sama borom moo war a ñëw ci man te ñëw na ci man bayit yi nag koo xam ne da ngaa ñëwoon ci kër nit ngir sàkku ci moom ngir ngir ngir jëm koo fexeel ngir jëm koo lor mu bind ay bayit yu mel nii jox la ko sa xel war naa tey waaye jëmm jooju nekk jëmm ju féttarlu ju dëgër bopp joo xam ne daal moom li nga xam ne moom la dëgg ma ngir def ko foofu la dëgg tànkam rek maanaam teggiwul tànkam bayit yi daal mel na ni comprendre li ko sëriñ bi bëgg a wax ci bayit yi ba demee ci meneenul baax xadim sëriñ Mouhamadou Lamine Diop ma nga fay nettal ne naar boobu nga xam ne moo ñëwoon ngir fexeel sëriñ bi te tubaab yi yebaloon ko bi mu ñëwee sëriñ bi bi nga ko joxee bayit yi ba noppi daf ko cee tegal ne ko na nga mokkal bayit yi nag bu baax di ko jàng waxtu nekk te nga boole ci sóoratu yaasin wax nañ ne li mu jublu woon ci bayit yi mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Diop mu ngi nettali ne ci biir meneenul baax xadim ne sëñ bi li mu jublu ci bayit yi mooy dafa bëgg naar bi comprendre comme ni ñu leen ko expliqué waaye beneen bi mooy sëñ bi dafa bëgg itam sootu yaasin boobu naar bi di jàng mu aar ko ndax sootu yaasin dafay aare ba nga xam ne bu lor yegsee naar bi dina ci mën a mucc ndax benn ci lor yi mooy pexe mi naar bi bëgg mu sotti sëñ bi xam ne loolu toobare suñu borom la waaye bu pexe mi sottiwul naar ba loru lor googu la ko sëñ bi di bañal ci noonu nag naar bi wéyee di nekk ca kër ga mokk lool nekk taalibe di liggéey di bay di bale kër gi di dëbb lépp bépp liggéey boo xam ne donga yaa ngi ci kër gi di ko def donga ne ci kër gi ñoo ngi koy def naar bi moo ngi ànd ak ñoom du ko def boole nag ëmb nag lor yu bari ci biir xolam ngir sëriñ bi. ci noonu nag bi nga xamee ne doxal nañu ab diir diir bu yàgg lool sax naar ba woy di nekk ci kër gi nekkin wu yéeme di liggéey liggéey yu jéggi dayoo ba ñëpp yéemu nekkinam ci kër gi ndax lu mu jàmbaaree. waaye sëriñ bi moom xam na li xew dara ump ko sëñ bi nag dem ba mu yàgg mu bëgg a dimbale bi ci pexe yooyu ngir noppalal ko liggéey bi maanaam yombalal ko yefi yi benn naar bi jéem a def li nga xam ne mooy mu bi xam ne loolu borom la dafa dëpp ak coobare suñu borom wala naar bi échec te échec googa sëñ bi fexe ba du ca loru mën a dellu ci ay itam ci noonu nag la sëñ bi daal di sancee kër goo xam ne ngi ko samp ci ngi ko sanc ci borom kër gi dafa xaw a sore kër gu mag gi foofu ca tintu mo sëñ bi mu sancee kër gi dafa benn xayma ak benn jàkk ba noppi ñu làkk kër gi mu wër sëñ bi nekk ci biir kër gi lenn ci taalibe yi di nekk ci kër ga waaye teewul kër gaa ngi am sécurité waxtu wu nekk rek sëñ bi day jaawante léeg-léeg mu ñëw ci kër gi kër gu ndaw gi léeg-léeg mu dem ci kër gu mag gi waaye wax nañ ne benn bis sëriñ bi dafa jógee ci kër gu mag gi dem ci kër gu ndaw gi jamono boo xam ne nag kër gaa ngi wét kenn new fa wax nañ ne ñaari jëmm rek ñoo fi nekkoon ku ñu wax Mouhamadou Lamine ñan Mouhamadou Lamine Niang nekkoon kenn ci mag ñi àndoon sëriñ bi ca gànnaar nekkoon itam mbokkum sëriñ bi mu ko jege ci wàllu néeg ndey moom Mouhamadou lemin Niang moomu moom lañu daan wax Mouhamadou lemin Mati Mouhamadou Lamine Mati moomu dafa nekkoon ku jege sëriñ bi ci ak mbokk ndax wax nañ ne waajuram dafa bokk ak a jaara moom nag moo nekkoon bëkk néegu sëriñ bi ci jamono boobu ba tax na daan na sëriñ bi lu bari moom nekkoon na ca kër googu ak keneen ku ñuy wax Amar Fall Ndate Amar Ndate mu ngi dëkkoon Kajoor nekkoon kenn ci mag ñi àndoon ak sëñ bi ca gànnaar Amar Fall Ndate moomu wax nañ ne bokkoon na ci ña waroon a falu buur ca Kajoor di ceddoo waaye dafa mujj tuub ànd ak sëriñ bi tuub lépp loo xam ne nekkoon na ci moom ci ceddoo ba noppi daal di mokk nag nekku taalibe bu jub bu tegu ci siraatal mustaqiim koo xam ne jaamukatu yàlla la woon murid saadix la woon bu dëggaloon ci sëriñ bi moom itam jamono yooyu fekkoon na ko mu nekkoon ca jàkka ja sëñ bi defaroon mu nekkoon fa di jaamu yàlla nga xam ne ñoom ñaar ñooñu rek ñoo nekkoon ci kër gu ndaw ga bi nga xamee ne nag sëriñ bi ñëw na waxtu guddi kenn newu ci kër ga sëñ bi ñëw ca kër ga kër gu ndaw gi maanaam jugee ci kër gu mag ga ñëw ci kër gu ndaw gi te ba mu fa ba fa nekkee kenn new fa ku ñaar ñooñu képp ci la naar boobu daal di jugee ca kër gu mag ga daw ngir dugg ci kër gu ndaw gi ndax bu fa sëriñ bi moom kese dal di mottali nag mission mu matal mission am maanaam fexe dal di faat sëriñ bi comme ni mu ko bëggee naar boobu nag wax nañ ne moo ngi tuddoon naaj yi moom naaj boobu naar boobu dal di jógee ci kër gu mag ga dal di daw dugg ci kër gi ndaw gi ngir fekk fa sëriñ bi wax nañ ne bi muy ñëw nag dafa futteeku ba set wicc comme ni ko ndeyam juree daal di yor jaas joo xam ne daf ko waajaloon ngir sëriñ bi ci noonu la dawee ñëw fekk sëriñ bi ci néeg bi naar bi daal bocc jaas yi maanaam dal di xàcc jaas yi ngir dóor ko sëriñ bi noonu nag naaji moomu di naar bi bi mu bi mu xàccee jaas yi ba dóor ko ngir mu ñëw ci sëriñ bi waaye guum yi nga xam ne muy buum yi nga xam ne ñoo nekkoon ci xayma gi dal di téy jaas yi maanaam buum yi dal di téy jaas yi lonk ci ba nga xam ne jaas yi du mën a agsi sëriñ bi naar bi nag noonu mu dal di tiit di pat pati di lox ndax mel na ni pexe baa ngi bëgg a ndax jaas yi jaas yu ñaw la buum yi sax mënu waru ko mën a téye mu xàcc ko ngir mu dal ci kaw sëñ bi ngir mu faat sëriñ bi waaye buum yi nga xam ne ñoo nekkoon ci xayma gi daal di téye jaas yi wax nañ ne jamono yooyu nag ki nga xam ne moom mooy Amar Fall Ndate moom Mamar Fall Ndate moomu Amar Fall Ndate moomu dé bi naar bi romb di daw di dugg ci nekk sëriñ bi mu ngi koy séen noonu la dawee daal di woowi Mouhamadou Lamine Niang moomu dal di ne ko nañu gaaw dem ca sëriñ ba ndax naa mii di naar bi bu ñu yéexee dinañ fekk mu lor sëriñ bi ndax ay pexe la yor jëmale ko ci sëriñ bi ndax daw na fi léegi romb ma ak gaas yi noonu nag la ñaar ñooñu daal di dawee daal di dugg ci biir xayma gi lu dul ñuy yëglu ndax tiit ndax xayma sëriñ gi boo fi daan dugg da jox sëriñ bi war ma daal di yëglu waaye ñaar ñooñu dañoo daw dugg ci xayma gi ndax tiit ndax jëf jooju nga xam ne moom la naar bi di jëf bi ñu agsi rek tombeek naar bi fexe na ba génne jaas yi guum yi nga xam ne moom moom la guum yi guum yi nga xam ne ñoo laxasoon ci jaas yi naar bi fexe na ba génne ko ba daal di xàccaat xàccub ñaareel bi dóoraat waaye bi muy dóor buum yi daal di tiyaat jaas ji naar bi nag daal di tiit nag foofu nag xam ne nag mbir am na tombeek nag ñaar ñooñu daal di yegg bi ñu yegg rek dañ ko daal di jàpp rek tëral naar bi ci suuf tàmbali di ko dóor bëgg koo bëgg koo faat noonu sëñ bi daal dina déet déet déet bàyyi leen ko sëñ bi daal di gaawantu rek ne leen bàyyi leen ko jéggal leen ko yàlla jéggal leen bu leen ko rey na ngeen ko jéggal yàlla jéggal leen ci noonu la sëñ bi waxee ba ñu bàyyi naar boobu bi nga xamee ne bàyyi nañ naar bi sëñ bi daal di jël yére boo xam ne yéreem la di yére bu rafet sëñ bi daal di ko koy jox yére boo xam ne dañ ko jox sëñ bi te sëñ bi solagu ko mu jox ko naar bi naar bi daal di koy sol sëñ bi daal di wéet ak moom waxtaan ak moom delloo ci xelam waxtaan ak moom waxtaan wu gën a rafet ba xelum naar bi dellu si sëñ bi daal di yëkkati valise boo xam ne ay yére yu bees yu rafet yoo xam ne dañ ko indiloon sëriñ bi sëñ bi daal di koy may naar bi ba noppi nag daal di yëkkati juróom fukki junne yi nga xam ne moom la ko tubaab bi bu waroon a jox waroon a fay ngir mu rey sëñ bi ngir mu faat ko juróom fukki junne yooyu la sëriñ bi yëkkati daal di koy may naar bi bi mu ko ko mayee ba noppi daal di koy teral ci noonu nag la ko boole ki nga xam ne mooy Ahmed Fall Ndate ginnaaw boo xam ne sëñ bu waxtaan ak ñoom ne leen nag li xew fii na yem suñu diggante bu kenn xam maanaam bu kenn xam jëf ji nga xam ne naar bi jëf na ko sëñ bi daal di woo Ahmed Fall Ndate daal di koy booleeg moom. Amar Ndate sëñ bi ne ko am na ay gan yoo xam ne dañoo tàggoo woon ngir war a ñibbi te gan yooyu samay taalibe lañ te yeewi naa leen suba lañ war a dem fexeel ba nga boole ba nga boole leen ak naar bi ngir bu ñu xëyee ñu ànd ak moom dal di koy yëbbu maanaam daal di koy déposé waale yëbbu ko ngir mu dem ñibbi léegi nag bu ñu ko yëbboo ba fa nga xam ne mooy xomaat ci post bi nga xam ne fa la mooy poste gouverneur bi poste tubaab bi nañ ko bàyyi foofu te itam bu kenn xam lan moo dox sama diggante ak naar bi. ci noonu nag la Amar Fall Ndaté daal di indi naar bi ci gan yooyu daal di koy présenté dal di leen koy présenté nee sëñ bi nee na kii ganam la gu mu fonk dafa bëgg ngeen yóbbaale ko bu ngeen di dem bu ngeen demee ba ci poste bi mën ngeen ko déposé foofu ci noonu gan yooyu daal di ne baax na ñoom bu ñu xamoon naar bi li doxoon diggante ak sëriñ bi balaa mu àgg ñu rey ko waaye xamuñu ci dara noonu la ñu amee kumpa ci mbir mi noonu la ñu déposé ci ëllëg sa noonu déposé naar bi ba yóbbu ko foofu daal di koy wàcc. mu nekk teraanga ju rëy ak njëkk ak njëggal ak mbaax guy feeñ ci sëriñ bi ci doxalinam digganteem ak ñi nga xam ne ñooy noon yi daan fexeel jëmale ko ci moom lii daal di misaal mu rëy ci sëriñ bi mbaaxam ak njëggaleem ak jikkoom yu rafet yi nekk ci moom muy loo xam ne doy na sëkk roywaay tey lu mat a roy ci képp koo xam ne gëm nga sëriñ bi wala nga yaakaar ko fii la ñu yemalee épisode 19 bi ñu jox leen dig daje épisode 20 ci lu yàggatul dara incha allah jërë